Kiss me, yeah. Hey. hey. <laughs> Give me a kiss. Mwah. Hello, Halima. <laughs> Bonjour, Halima. Comment ça va? Je suis euh, un une actrice célèbre. Je suis. tu, bon, tu, mon... Hey baby! tu manges! Oui! Dis bonjour! célèbre. On a le paquet, très fort le baguette. Toi, tu essaies avec tes baguettes, toi? Ça, c'est garba. <laughs> ils ont envoyé. njaxas la. ndeysaan waa dafa métti nag ah. njaxas bi nag parfois da lay indil ay problème sax. ndeysaan fu ne lañ leen dëkkuloo. waaw fépp lañ lay dëkkuloo kay. boo demee ci naari ñu dàq la boo demee ci sénégalais ñu dàq la. ñu ngi ñu ngi ñu man moom ñu dégg ay wëndëg lañ. man moom je passe inaperçu xaw ma nag yow waaye man moom mën naa jaxasoo ak gars yi. man nag dama xaw weex dugg tuuti. <laughs> yow da weex dugg man mën naa jaxasoo ak <laughs> tout rek tout mais quand on ci ci ci ci que maîtresse de nos mariés avant maîtresse sax spot so Halima Gadji wala Mariam Dial bu maîtresse d'un homme marié ma nga foofu ca Angleterre donc yéen communauté sénégalaise bi nekk Angleterre wala communauté africaine bi nekk Angleterre seen doom jaa foofu bokk na ci benn sélection bu ñu ci africaine yi gën a xarañ ci wàllu cinéma ah, ak wàllu culture ñu indi ko foofu nga xam ni moom mooy euh, ci Angleterre pour benn caravane bu doy waar donc dem leen ngeen support ko parce que ñu fa indi yëpp seen ay mbokk ñooy ñëw di leen support donc dem leen ngeen support ko pour ngeen gën a am information yi da ngeen koy topp ci page Instagram am Plume Glamour ngeen gën a xam information yi gën a xaw euh, xam lan mooy xew tey luy xew suba ba ci le 21 lan mooy xew am na ay activité yu bare bare bari yoo xam ni moom euh, xalima daf koy def foofu nga xam ni moom mooy ca Angleterre donc suivre leen ko ci page Instagram am euh, Plume Glamour ngeen xool seen doom ji lan la liggéey ak lan lay def ci foofu nga xam ni mooy ca Angleterre en tout cas booy man maa ngi lay support et <laughs>